قلبي له في هتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار يلوم جسمي دهبا في الجنوس بلا علم ولا حمل والنفس خرار ما زال للخير يده ويكسبه لو ëpp te gën a ràññeeku ci liggéeyub Cheikh bu jollee ba am dayoo bu rëy te yaatu bile ndono li rekk lañu taw ba sëngeemul laalul suuf te amaana day gën a jëm ca kanam li ko waral moo di njaboot gi fi Seexul Xadim bàyyi di ay jàmbaar yu donne njàmbaar ci jàmbaar jii di jëmm ji jàkkaarloo woon ak ay noonam tëral leen fi suuf te xat damul bi ñu noppee gis ci saayir ku tedd ki rekk la jaayante bu bees tàq sosu ci mbooleem njaboot gi ci gannaaw cheikh mustapha al karim monte at ya bariwul woon naam waaye fit wa rëyoon na lool cheikh mahamadou mustapha radiallahu anhu moo njëkk a nekk xalifa cheikh ahmad bam di ki nga xam ne mooy taaw sëriñ tuba ci góor e, mi ngi gane àdduna ci guddig ajuma di fukki fan ak benn ci weeru xarit dëppoog 1306 <coughs> ci gàddaay gi maanaam atum junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn gannaaw <coughs> ci yonent bi ci gàddaay gi dëppoo 1888 ci at moomu ci la Cheikh Mouhamadou Moustapha gane si àdduna ci dëkk bi ñuy wax Darou Salaam ñu yóbbu ko ci sëñ Daam Abdourahmane Lo mi nga xam ne moo daan jàngal mboolem doomi Cheikhul Khadim yëpp foofu la jànge ba mokkal alxuraan ba mu fa bàyyi ko e dem ci maam Thierno Birahim mi nga xam ne moo doonoon rek ci sëriñ bi e di ki nga xam ne itam moo susunul ci moom rek waaye moo doon doonoon jàngalekat bi nga xam ne fóore woon joo xam ne e bari na fi mag ñu xam fii ci biir yoonu murit moom maam Thierno Birahim moo leen jàngal. bindal na sëñ Touba ñeent fukki kaamil ak ñaar loolu liggéey bu rëy la. waaye kaamil bi mu ko mujj bindal nga xam ne bi ko sëriñ bi jotee kaamil bu rafet rafet lool ci mbind mi ci euh, wàllu gone rek biñ ko ci seetee ba kaamil bi dañ ko tuddee woon Kamal kaamil moo indi turu Cheikh Mouhamadou Moustapha Kamal e mu dugg nag ci yoonu tarbiya tarbiya ruuxiya maanaam jàng nga ba noppi waaye nag dañ laa war a tàggat dañ laa war a tarbiya Euh, tarqiya la yéegal si itte nga jëm ci yàlla euh, loolu it la nañ ko daan defee taalib yi rek la ko sëñ bi daan defee ay doomam sëñ Modou Moustapha sëñ bi moo ko digal mu ñëw Touba moo ko digal mu ñëw sanc si Touba defar def defal ko defal ko fi kër moo Cheikh Mouhamadou Fadel ci diggante boobu ci la sànc dëkk yi ngeen di dëgg yi mu def yëpp sànc na dëkk yu bare bare bare bare bi mu nekkee xalifa cheikhul xadim radiallahu anhu ba Serigne Touba li bàyyi ko fi 1927 mu nekk xalifa Serigne bi loolu di yan bu diis yan bu metti yan bu doy waar mu yanu ko ولم يجه من سوي الإفلاخ والبلخاء بسجء والسهر مما آذى من سار li jëkk ci ab liggéeyam moo di taxawu njabootu Cheikhul Xadim ci yar leen jàngal leen taxawu leen ba li sëriñ bi bëggoon ci ñoom lépp antu mooy sëriñ bi bi muy dem dafa bàyyi ay tu tànk ci saayir dama yàlla baal ay ay ndaw yoo xam ne ay njabootam lañ te bi mu fiy jógee boobu mataguñu dal wala mataguñu jàng mataguñu yar mu bàyyee leen sëñ bi Moustapha mu def mu def lu mën pour ñooñee fi sëñ bi bàyyi mu def ci ñoom lu mel ni ña teewoon sëñ bi mu leen di jàngal ak jàngal mu leen di jàngal ñu bari ci njabootu sëñ bi bi mu fiy jógee ay ndaw lañ waaye sëñ mënu Moussa jël leen fexe ba jàngal leen la ñëpp jàng yar leen nañ yare ñëpp ba koo ci gis doog koy jaawale ku ku ku fekke woon sëriñ bi day mel ni sëriñ bi moo leen yaroon ramal wara muslimin allahu والفضل عند الرسول الله قرار li face fess nak ci liggéeyub serigne mohammedou Moustapha modi ray bi mu andi Touba ak tambali liggéeyub juma ji liko serigne Touba serigne bi nala bi fi baye muy projet bu mag bi fi que moy liggéeyal ko yam Touba mu lu Touba amul tali goudron amul Sahar. amul ndox. amul benn infrastructure boo xam ne mi ngi biir Touba dara nekk fi am àll rek nga war fee tabax jumaa ju toll noonu. bi nga xamante ne nii jaaju na nag moom njaboot bi tubaab yi teg leen ay conditions yoo xamante ne nii doon na jafe lool ñu jéggi ko ngir mën a amalu jumaa ji ndax conditions yi ñu ko tegaloon mooy jumaa ji nga bëgg ci dimension bi nga ko bëgg. matériel bi koy def saret mënu koo yanu oto attunu ko kon faw nga wut yoonu saxaar te booba tawaab yi yooni saxaar yi nga xamante ne nii waroon nañ ko installé ci réew mi installé nañ ko ba pare te Touba amuñu fi intérêt ngir tëral fii yoonu saxaar bi nga xamante ne nii liggéeyu raay bi pare na nag Cheikh Mouhamadou Moussa jublu fii fi muy def jumaa ji ginnaaw fi ñu ko tàmbali woon ci jamonoy sëriñ bi boobu sëriñ bi ñibbi seegut sëriñ bi bi mu ñibbisee ci biir këram lañ ko denc moo tax sëriñ Moussa yëkkati kër gi indi jumaa ji wufal ko sëriñ bi. loolu lépp liggéeyu sëriñ Modou Moussa waaye damay wax ne liggéeyu sëriñ Modou Moussa bi ci ëpp solo gën ci rëy mooy indi gi mu indi sëriñ Touba fii ci Touba. turan wa qabli alladi ahlan al kuffaaru wa bi mu noppee gis magam ji rekk la cheikh Mouhamadul Fadilu Mbàkke yenu yan bi am yitte ju rëy keem na mu jaaye woon njureelam sëriñ Touba jënde ko ak taalibe léppam nag mu ngi laalu ci taalibe li mu am lépp ci taalibe la li nga xamante ne ni la sëñ Touba doon defee tarbiya ak ruux yi ñëpp moom itam noonu la ko sëñ Touba defee euh, noonu la ko tarbiya ca gànnaar موميت بندل نكو كامل يو باري شامام الفاضل لم جك دف موي جاي انتك سنتوا واه جاي كونك اك نيوري لم بيعت بنو وتيا بالاراده لكم لكي احظى بقرق العاده من داي لي گنا نيه سي ادنا موي سنتوا واي سا باي تر گنو كو نيه دار گنو كو ري waye limi reuy limi neex lepp man jayna la ko yow هل تربي بالمختال ثم بهم أن يواجئني بالمكر مكار سهل تربي بالمختال ثم بهم دوغو أمتي باركب سرين توبا لو خمني لومو نمو أم رك مو دال أم مو ورال سرين فالو دف دون دم جيب تي جماجي أغ كربوم ديجي لأغلي نيميتو لدك تي أبتبخ baraat néew ndax jàpp na ni benn tabax rek la am léegi bu mu war def muy jumaay bi sëñ Modou Moustapha demee moom it bi mu dikkee lim njëkk a ittiwoo ci àdduna mooy eggali jumaa ji soorool yi yëpp yooyu Cheikh Mouhamadou Fadel moo ko liggéey Lamp Fall bi moo ko ci dolli bokk woon doon ci plan bi loolu mooy doon liggéeyu jumaa ji ci ak tënk loolu rek mooy taxawaay yi nga xamante ne ni Cheikh Mouhamadou sa amoon na ci ginnaawam nag Cheikh Mouhamadul Fadel daal di taxaw rek taxawaay bu mat sëkk ba julli ko ci 1963. noonu nii rek la Serigne Fallou jiite ubbiteg jumaa ji muy tontu li gën a ràññeeku ci ne Serigne Touba liggéeyal suñu borom rek moo ko ñoroon. doon xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa moo taxoon mu tegoo ay nattu ba suñu borom fayee ko ndam lu rëy lii te yaatu te daj àdduna gépp mu jiite ko nekk ilimaan nekk alxalifa al nga xam ne moo njëkk a julli ci jumaa ji julli ajuma jiite ko nekk imaamu Tuubaa moom Cheikh Mamadou Fall Sénégal gépp tarixa yëpp état bépp daje fi bi mu àggale jumaa ji bi mu koy tabax lam ca boole mooy lu ñu bari xamut mooy ab jàngukaay la tabaxaale ci biir jumaa ji ji ab jàngukaay la sëriñ bi tabaxaale ci biir bi jumaa ji àggee ñu sanc ko nañoo sanc jumaa ji julli jumaa sanc daara ji di jàngale ay dëkk yu dul jeex yoo xam ne ni ma ko waxee woon sanc ne ko ci biir réew te damay wax ne am réew kuy sanc ay dëkk yaa koy doole pe ñoom sanc woon ay dëkk rek pour mu nekk ay dëkk nii déedéet dëkk yoo xam ne dañ fay liggéey dëkk yo xamne ay tol lañ ko fay def di fa yar nit ñi di leen fa jangal di fa liggey alal ju nga xamantene day jëriñ économie réew mi ci jëm قال المكرم لا تصل من جار فسار يدابس اثنينه نوما bu jàmbaar wuutoo jàmbaar ci ab xare la muy nàmpe ca kamu wuutu moo di fu ndam li mën a àgg mu agalé kofa taxaway bobu rek la Cheikh abdullah Ahad Mbacké amoon pas-pasub la Serigne Touba waxone sangam ba lahoo dëxëra nii yati wahil mii wa khidmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila shukli sukli jox Serigne Touba yenem xam xam-xamam ligeyam yengom ak dalam ak ruwam ak jëmmam ci luddul xajjat le Cheikh abdullah ak nekkam gépp mooy jëwriñu Cheikh Mustafa, Moustapha mooy jëwriñu Cheikh mamadou Fall momit di nit ko xamne taxawayam histoire dootu ko fatte mukk mi ngi gane aduna ci ñaar fukki fan ak ñett ci sawar Cheikh Abdoul nak bi mu gane aduna rek lañ xam ki ki mi doone ndax wax ci seigne touba wax ci mom mom bi mu gane aduna rek kaddu yi Cheikh Ahmadou Bamba wax ci mom rek ci la ñi xam ñépp xamoon kii fa mu jëm ëllëg kàddu yi mu wax ci moom ak tur yu mu ko tuddee ndax ba mu feeñee sëñ Cheikh Khadim dafa bëgg lool ñi ko ko wax ak ñi ko fekk sax ñëpp daf leen a bégal daal di wax ne kii ñëw tey dama am ci moom yaakaar lool waaw kii moom moom yi dama am ci moom yaakaar lool tuddee ko Abdul Ahad jaamu yàlla ki nga xam ne moom kenn képp la wari su si jaamu ku dul moom kon tur bi ak waxi sëñ Tuubaa jooju képp junj na li nga xam ne mooy ëllëgam ndax sëñ Tuubaa moom turi doomam ak ay waxam rek mooy feeñal lu bare bari luy xew ëllëg bi mu dalee wate wala dalee jàng comme ni ko doomi soxna yëpp waree defee sëñ bi jébbal ko sëñ am satu jaxate na jaayam sëñ Amsatu Jaxate jox ko ku ñuy wax sëñ Asan Jaxate mu jàngal ko alxuraan ba man alxuraan lool ba foofa la jàngi alxuraan li magam yu baax yi def yëpp mu def sañc ay dëkk moom itam dëkk yu bare bari yoo xam ne jàng ak jàngale ak liggéey rek moo taxoon mu sañc ها سمنتيه وردوان ومغفرة is annu qad utahi jaarun jëfi sëriñ Abdou Lahad ci Touba nag naam yokkum jumaa ji ci la bokk naam daaray kaamil ci la bokk ak yeneen ak yeneen waaye li ko taaral dëgg-dëgg moo di liggéey bi mu liggéey ci yaraat taalibe yi ak defaraat jikko yi li nga xam ne nag liggéey ne ko bi nga xam ne nekk na xalif Cheikh Ahmadou Bamba yanu yan bi nag loolu moom bu ñu fi nekkee di ko wax mën nañ fi nekk da nga ay ay bis di ko nett li tudd sotti sëriñ Abdou Lahad bi mu ñëwee moom it gis nga ko moo def loo xam ne moom ci ci ci ci moom la njëkkee mooy xalif bu ñëw déclaré na damay sos université ab université baatu université ci boppam la jëfandikoo ab université boo xam ne fu nit sàkkoo xam-xam ci adduna bi da nga ñëw sàkkoo ko ci Touba ndax loolu mébétum sëriñ Touba la woon sëñ Tuubaa ñaanoon na yàlla defal ko jàngukaay boo xam ne fu ne nit dafay jógee dikk di sàng sàkku si xam-xam bil Mustafa lii banal quddus madrasatan biha yazulul asa wal jahl wal kabar sëñ ñaanoon na lool sëñ Blaat bi mu ñëwee nag moom da doon topp rek tracé sëñ Tuubaa lu mu ñaan rek mu fas yéen amal amal ko daal di fa loolu tabax université bii ñuy wax université Baye Laat nga ne moo fi nekk ba léegi université boobu mu daal di koy tabax ba gis na mel ca jamono yooya dëpp ñeen fukki at ñeen fukki at ak juróom wala juróom fukki at ñu ne la lii kat sëñ Abdou Lahad moo ko defoon ci xam-xam moom dafa moderniser waat yoonu murid sëñ Abdou Lahad lépp lu amutoon Touba war fee am rek fexe na ba amal la ko yar gim yaraat nit ñi ba nit ñi amaat jom ba nit ñi amaat fulla nekkaat ay nit mu fexe ba génn ci dëkk bi lépp loo xam ne dafa naqari woon يلا نقر يونت بي صلى الله عليه وسلم نقر سيدي توبا با كين دوتو في ديف بو فيكون خليفه ام گيب لولو كيب لا تي ليغي دوينا وانما خرج المختار وجههم بعبدة من تراب والإدهار لب لسخلون ديني سرين عبد الخادر مباكة دفون نكو جنج يتيم ngir samal cheikhul khadim yonam wi di yonu mourid di l'islam di ñu ko yare tagot ko ci sëriñ Abdul Xaadir nag kenn la ci ñi nga xam ne sunu boroom dogal na ñu wuutu sayxul xadim radiallahu anhu ci kaw suuf ci mag ci njaboot gi ñi nga xam ne ñoo jaar ci xilaafa gi mooy ki ci ki ko ñeenteel ginnaaw Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Fadil Cheikh Abdul Ahad sëriñ Abdul Xaadir mooy ki ci tege nga xam ne kon mooy ñeenteelu xalif bu Cheikhul khadim radiyallahu anhu mom nak xamna ci teunk mi ngi fi ñewoon 1914 90 ci lañu deddu 90 doonoon jëmm joo xam ne nag buñ doon teunk kàddu yi nga xamne ne des na ko seere ci mom tamuy muy yo xamne aduna bëpp àdduna na ko maase séré moy ginnaaw bi mu doonee doomi Cheikhul Xadim radiallahu anhu teewul dafa jaar ci jaaruwaay yi nga xam ne mbooleem rijaalu diin yi fa lañ leen di jaarale ngir ñu mën a am ahliya ci mën a saytu diine ba sunu borom dogal nag mu nekkoon boroom xam-xam bu mag waaye doonoon it kuy jëfe la mu xam nekkoon aalim nekkoon aabid jaamu kutub yàlla la woon boo xam ne ñëpp ko mën a seere loolu bi ahdi mubiyan abadan bila iltifaati ilaa maa fiihi axyaar wa an akoona ala al ahdaai mutaliyan xaadat asraarun wa axyaar naam sëriñ Abdou Khadre Mbacke yàggul ci jal bi waaye fa mu féete woon magam yi ci taxaw lépp lu aju ci diine ak sàmm sunna seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam siraatal mustaqim gu wér sëriñ abdul xaadir nag ci jamonoom nikaax bu war a am moo daan méngoo taxawe ko ngir xeemeem guñ xeemeem jëfam ak yaakaar guñ ca yaakaar barke la cay toppit muy tanaakahu tanaasalu tanaasul saa bu amee fu doom juddoo rek moom moo méngoo woon joxe tur yi maanaam tudd doom yi loolu dafa bokkoon ci muhimmam bi nga xam ne dañ ko ko féetale woon waaye nag ñaar yooyu ni muy amee rek la ca baaxoo topp képp ku dund kullu nafsin dha'iqatul mawt saa bu faatu amee it dañ ko daan wóolu ci mu taxawee way faatu yi ngir yaakaar ci ñoom bu leen taxawoo njéggalug yàlla ak yërmandeem loolu nak neexon ko lool mu taxawon ci taxawaay bu am solo ànd ak nak diggam ak doomu adama yi mom dafa taxawon temm ci men mbir mo xamne ne ca la nek ci ta ca leen ca la leen doon soññi te mooy al istiqama moy tege ci siraatal mustaqim nga xamne do ëppal do yéesal nonu ko wajirum wa cheikhul khadim radiyallahu anhu jangale ولا تكن مفرطا او مفرطا بل استقم في سنه wa sëriñ Abdul Xaadir cooci la tënk woon te it kàddu gu mas a bàyyikoo ci moom rek jëm ci doomu aadama yi tey kàddu gu ndénkaan koo xam ne lislaam ci la bàyyikoo baat boobu bi moom dajay cay fees dell te mooy ñu tënku rek ci listiqaama bu indut baatub listiqaama bi it kàddu ya muy joxewaat maanaama buñ ko dajalee day delluwaat ci istiqaama buñ xoolee maanaama rek ci istiqaama lay delloowaat nit ñi kooku moom mënees naa tënk loolu ci ay jëfam teewul nag nit yàlla yi wala li fi sëriñ bi bàyyi woon rek muy ndonoom nekkoon na ca lool te mooy sañc ay barab di fa yare ak di fa jàngale bi ñu noppee gis sëriñ Abdou Khadre Mbacke la sëriñ Cheikh Salihu Mbacke yor caabi buntu kër sëriñ Touba. bokk na ci ay kàddoom yu fës li mu ne woon lu dul lislaam awma ci ab yàq awma ci ab defar mu doonoon ab yarkat jàngalekat baykat bu ràññeeku woon lool sëriñ saaliwu nag yaakaar naa tur wi rek boo ko xoolee wane na mission bi ko sëriñ bi jox as-saalih wal muslih sëriñ Tuubaa dafa daan ñaan yàlla ci njabootam am koo xamee ne wala njaboot gépp sax doon ay muslihoon ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودهم خوفا وطمعا ان رحمه الله خير من المحسنين كون اصلاح موي ولا دفر سوسي دفر بكاني دفر نيت ني دفر خولي لول موي ميسيون يونتي موي ميسيون ولي داليكو تي سيدنا ابراهيم با سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لول ريك لا نون تاخوي نيك نك سيرن بي با سيرن بي جوخكو نيجايام سيرن امساتو مو جاغي سي موم القران بام كوي جوخيت لوخنا joxuma la ko ngir day aaday wolof nga xam ne dañuy jël nit day jël euh, doomam jox ko nijaayam waaye daa am lu ma def ci yow te xam ne man nga koo def ci ñoom ma bëgg def ko ci ñoom kon euh, foofu la ko sëriñ bi jaarale mu jàngee fa alxuraan nekk fa ak sëñ Abdou ak yeneen ci njabootu sëñ Tuubaa gi sëriñ Chouaïbou sëñ Abdou Samad ci diggante soosi la mu nekk ci daara ja sëriñ bi daana ko nettali euh, ñi mu daan yar doo tër bi ci nañ ko daan formé mu ñu koy nettali ngir bëgg ñu roy ko ci ak jàng ci moom mën a muñ ak nangu coona te xam ne képp ku bëgg a defal yàlla lu rëy da war a am foo jaar fuñ la war a jaarale ak noo war a la war a préparé noo war a muñee loolu daana ko wax lu bëree bëri eh, eh, ci noonu bi am njàngam àggee it ci la tasanteeg sëriñ bi jóge fii ci la nekk ci eh, loxoy sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha yóbbu ko ci daara ji ci wetu Touba xusnul ab muy tindoo di wut boroom xam-xam yu mag yóbbu fa mu war faa jànge mu nekk foofa jàng fa as diir gannaaw ba la jógee laxas dem Mbakol ci te Mbakol ku ne xam ne ne eh, milieu xam-xam la ci lislaam bu siiwoon ci province yi ëppoon xam-xam ci jamono ceddo ji la moo ko njàmbur foofu jànge na fa ca daara yi xaalima jaxate muy sëñ Mor Saasum jaxate eh, di kenn ci mbokk yi moko jàngal domi xaali mam xaali jàng na ci yenen daara yu mag yu fa nekk ndax nee na daana xëy suba fépp fu daara nek fofu rek dana fa jaar jàng bu xeye bala ñibbi wat jant dana so te lépp rek sa ko xam xam-xam la lool lépp nak dafa mel da doon préparer mission bi ko serigne touba defal bi mu wara a serigne touba ci liggéeyal ko ci nit ñi te loolu day laaj ni ko serigne touba waxe min a tabaxuru fi ilmi sharihati ma ilmi alxaqiqati min xadri riyaadat nee nit ki bala tambale tàmbalee tarbiye nit ñi eh, da nga wara mat ci xam-xamu sharia waye man ci xam-xamu haqiqa moo tax bi yooyu ma ci wax di ko jaarale ay jaar-jaar la won ba pour man mat liko ko bi liggéeyloo ci defar doom adam ajilan wa ajila khulni zamil islam ma yasidu xubbaka yaa ma indoo loolu lépp nag daa am laltaay lu dëgër ci ak njalbeenug Serigne Saliou te loolu bi mu agsee rekk da koo fësal muy ndigalal woote ngir ñu jox ko ndaw ñi mu def ci ñoom la sëriñ tubaab defoon ci mag ñi liggéeyub Serigne Saliou ràññee lool ci dëkk bi ci jumaa ji ak yoonu murit gépp Xelkom nekkutoon barab bu ñuy bàyyee rekk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 ca daara joo képp képp lañ ko lañ ko jàngee. 1934 ci la tàmpale liggéey boobu euh, booy xool mu tàmbale di sos ay daara di tarbiye nit ñi di liggéey di ñaq di joxe wut espace boo xamee ne tamit lim bëgg ci defar doomu aadama ak wéet ak ñoom ak beroog ñoom di defar seen ru di leen éduquer di leen defar foofu la ko mën a amee. bari na lum jëmmal ci dëkk bi ak bitim dëkk bi. bokk na ci yooyu jumaay Cheikhul Xadim ji indi na ci ay yeesal yu bari yu am solo yu ñëpp teg bët waaye naka noonu it biir dëkk bi ci boppam li mu soxla ci ndox ak li mu soxla ci courant bari na lum ci amal kër sëriñ Touba yi nga xam ne dadul doon lu mën a ñàkk ci biir dëkk bi ndax euh, naa lekk mébét yi nga xam ne moom la Cheikh Mahamadul Muntaqa am yàlla na ko fi yàlla yàggal te dolli ko ak wér bu sottee ci la ñuy xam solos kër Serigne Touba yooyu nga xam ne moom la Serigne Saalihu doon amal ci xiblay dëkk bi tam war a toll ci ñaar fukki kër ak juróom-ñaar tolloo ak xarafi Touba. alaysa yunjuddani bil axfa nafayda kulla man xalaani farab lima yasoo dawa man sakurab yàlla wa ya rahmaanu ya basiru xaadiru ya bi nga xamee ni doomi Serigne Touba nekkatul ci kaw suuf jaaxle ak tiitaange amoon na waaye jëmmi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké toog ci xilaafa gi doon sët bi jëkk bi taawu ndonoon sëriñ Touba li tax na xel yi dellu siwaat jaar na fi képp ku li njabootuk sëriñ Touba jaar ci jàng ak tarbiya moom Serigne Mouhamadou Lamine Bara nag mu ngi gane jamono Ndindi 1921 diggante boobu daal soriwu ko diggante boobu la ñu wax ne ci la feeñ diiru bi mu feeñee nag ba bi ñu ko noppee gis ci tarbiya la nekk ndax ci ndigal la doon dox ba bi mu noppee gis ku ko jox ndigal sunu borom dogal mu wuutu Cheikhul Khadim ci kaw jal bi waaye mu jëlaat lépp jox ko rakk yi ñu mbokkal bokkal Serigne di leen diglu am na it moom it ay ay ay ay jëf yu mu jëf ci wàllu ruux ndax amoon na ay barab yoo xam ne. daara yoo xam ne dañ fa daan jàng ak di fa yare ku ku daan topp ñam war a topp la ndax wax na ci euh, làmmiñu boppam ñu bari fekke ko mu ne yóbbu na Serigne Saliou ba tey ci oto di ko dawalal di ca wax yi sax yu xorom yu yéeme Serigne Abdou Khadir moom ak demam Makka ku ne ràññee la ci Alaaji Baara Serigne Abdou Serigne seereel na mbooloo mu bari saa bu ñu tuddee El Hadj Baara mu ne El Hadj Baara de taxaw bu ko doon taxaw ba leen ba mu demee it bari nañu xam El Hadj ci jumaa ji kon jaamu yàlla la woon rawatina bi fi suñu Abdou Khadir bu suñu di ñëw daal day fekk mu taxaw di ko nekk ba ci suñu Abibu Mbacké def na ko ab diggante kon ku doon liggéey ci. ligéy yalla la ci jaami yalla yi rawati na walu social defe ni ñepp mo leen wara taxaw kenn ku ci nek lu ñak mu ñàkk moom moo ko ko war a defal doon na doxe tànk yooyu لي وجال من هذا jawab man dala an sinna di waqtani an bi allah di wajikal الكريم lu ragne ràññeeku ci dunduk Cheikh mohammed Lamine Bara Mbacké fadilu moo di fonk lool yoonu makkatal mukarrama te firndewu na. diggante boobu baagante na ko lim boo xam ne néewaa nañu gis nag koo ko baagante loolu maa ngi ko jëlee ci làmmiñu doomam ji ñuy wax sëriñ Cheikh Ndindi yàlla na ko sunu borom sàmm te dëgëral ko di jàmbaar lool di borom xam-xam di nit ku baax moo ma nettali lool yi ne sëriñ Fallilou moo ko ko dénkoon. Euh, boo gisee it jumaa yi Cheikhul Khadim ji ni ko fanke woon bokk na ci ndénkaanam yooyu El Hadj moom jumaay cheikhul xadim ji rawatina bisub ajjuma <coughs> lum tàng-tàng wala lum sedd-sedd wala muy taw du tee rek moom da koy teewe bokk na ca kàddu yam waxoon fee madinatul a nekk fee yonent bi nekk sallallahu alayhi wa sallam di madinatul munawwara dafa am pas-pasub tuubaa mel ne barab boobee am na sax num ràbbe woon waxiin wa waaye maanaam mi rek mooy taar ba madina am moom daa am pas-pasu taar boobu Touba am ko am na lu mu ci jëmmal ndax bim toogee ci xilaafa gi lim réalisé ci jumaa ji indiwaat na ay yeesal ak ay taar ak ay mbir yoo xam ne wax dëgg yàlla àgg na ci képp koo xam ne xool nga jumaay Touba xool madinatul munawwara da danga xam ne ki waxoon ne dafa bëgg Touba mel ne Madina dox na ci ay jéego. bokk na ci yi nga xam ne sottee na ci ay loxoom. comité d'organisation bi yore màggalu Touba gi moom moo gis ne Sëñ Touba naka jekk euh, dafa yaataloon mbir mi ndax moom ci loxol boppam moo ko liggéey moom borom Touba waaye téewul nag mu sëdd ci ay nit ay cër yoo xam ne mën nañoo dem sax ba jàpp ne ñoom mënuñoo ñàkk ci mbir mi te fekk ñaag ba leen bi ñaag rek moo moo duun ñaag boobee sëñ bi doon ñaagaate nag moom bi mu agsee e, ngir firndeel ne sëñ bi luñ bokk la lu ne ku da cee war a nekk moo waraloon xalaatu comité d'organisation Magalu Touba gi ba léegi si mi ngi dox ba agsi ci loxoy sëriñ Muntaxa Mbakke yàlla na gën a yàgg ci loxoom xaalibul kullu minhu min sadidin zaalimun lil muslimina wali kulli ñaareelu sëtub cheikhul xadim bu toog ci xilaafa gi moo di cheikh Sidi Mokhtar Mbacke ak njalbeenam doon lu dëppook li mu nàmpe ci ay waajuram muy nonal cheikhul xadim boo koy qualifié dangay wax moom c'est une force tranquille ku daloon la woon ku xam boppam ku équilibré la woon ku xam li mu yoroon li mu doonoon ko xam tamit li mu donn lan la sëñ Sidi Moxtaar nag ci jàmbaar lislaam yi la bokk ñi liggéeyal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam liggéey bu leer ci biir toolu maamam sunu kilifa gu tedd googu nga xamante ni jaar gi mu fi jaar mel na ni téeméeri at la fi def ngir réussir boo xamante ni réussir na ko ci mission bi nga xam ni moom la yoraloon maamam Cheikhul Khadim di ko doxal doomu Cheikh Mouhamadul Amin Baara la ak soxna Mati Lay nekkoon juróom-ñaareelu doomu cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaye nekk juróom-ñaareelu xalif cheikhul xadim e, moom cheikh Sidi Makhtar radiallahu taala anhu mi ngi gane àddina fukki fan ak benn ci mois weeru juillet maanaam la 11 vingt 1925 ci Mbàkke Kajoor ci diggante cheikh Mouhamadul Amin ak soxna Mati Lay nga xam ne soxna ma Sàll moo ko jur Cheikh Mawlid Lamine Bara tuddee ko xaritam euh, xaritam ba ko jige woon lool maam Cheikh Awa Balla di doomi borom daaru euh, turam nag Cheikh Sidi Maxtaar Mbàkke la waaye ñu gën koo xamee ci Cheikh Awa Balla ndax bu jëkkoon cheikh yi dañoo bare woon ci kër sëriñ bi kenn ku nekk dañ lay tàggantale ci sa waajur jigéen waaye Cheikh Sidi Maxtaar la tudd ñu koy dàkkantale ci maam Cheikh Awa Balla bi mu tolloo ci at Cheikh Mawlid Lamine Bara dem Mbàkke Kajoor wax soxna Mariama Sàll maamam ni ko àndal ak soxna Mati Lay nga indil ma Cheikh Sidi maxtar fii ci Jurbel ci njaareem mu ànd ak moom yóbbu ko njaareem Cheikh Mouhamed Baar daal di koy jël yóbbul ko Cheikhul Xaddim Cheikhul Xaddim ñaanal ko gis ko loolu mi 1926 la woon ci njaareem eh, bi mu ko ñaanalee mi ngi tifli ñaan gi ci lopp ndeyjooram moo tax Cheikh Sidi Maxtaar daan wax ni bépp soxla boo xam ni dugg na sama nopp ndeyjoor boobu dina saafarawu ndax ñaanu Cheikhul Khadim googu nee na sax bi mu ñibbisee waajuram nettali na ko ni nopp bi am na juróom benn weer yoo xam ne doon xelli ndax ñaanu sëriñ bi bi matee jàng itam waajuram moo ko dalal jàng euh, ngir barkeeral ko àlluwaam bi mu ko dalalee jàng ba noppi dal di ko jox turandoom maam Cheikh Awa Balla ci Touba Darul Manaan mu am fa ab diir waaye Cheikh moo leen baara gis cofeel ak mbëggeel gi nga xam ni maam Cheikh Awa Balla am na ko ci moom moo xam ni bu fa nekkee <clears throat> mën na koo gàllankoor ci am njàngam mu àbb ko ko ni ko dama bëgg nga abal ma ko ma jàngale ko waaye dinaa ko delloosi maam Cheikh Awa Balla ànd ci ak moom mu jël ko andi ko fii ci benn taalibeem ku ñuy wax Serigne Ñaan Diop fii ci Touba Kër Serigne Ñaan nga xam ne moo jëw nekkoon jëwriñu Cheikh Mouhamadul Amin Baara mu jàngal ko leen ci alxuraanam mu yóbbuwaat ko balal ci sëñ Modou Amar moom it mu jàngal ko ba alxuraanam àgg mu soog ko jël yóbbu ko njaareem ngir mu jàngi xam-xam yi nga xam ni moom la doomu soxna baaxoo jàng fii ci senegal bi mu demee njaareem jëkk naa jaar ci sëñ Mouhamadou Dem jàng fi ay lëf ci ay téere soog a àgg ci sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana mi nga xam ni bari na ci njabootu sëriñ bi ñu mu jàngal ba lépp loo xam ni warees na koo xam ci wàllu diine mu xam ko soog a ñibbisiwaat ci Cheikh leen Bara mu joxaat ko turandoom mu wéy nekk ak maam Cheikh Awa Balla ba Cheikh Mouline Bara génn àddina maam Cheikh Awa Balla ànd ak moom di ko jàngal àddina di ko tarbiya di ko yar e Cheikh Mouline Bara Bara itam mii waajuram am na lu mu waxoon maam Cheikh Awa Balla ci moom am na lu mu ko dénkoon ci moom waaye lépp mu matale ko ba mata samp kër 1947 maam Cheikh Awa Balla sancal ko kër sampal ko kër ba taawam di Cheikh Mamadou Moustapha mii foofu la gane àddina ba 1948 mu daal di ko yebal mu sanc ab dëkk bu ñuy wax Tambédou ci wetu Touba Kër Ngànna Tambédou Kër Ngànna bokkul mat na ñaari kilomètre waaye suuf sa xat ci moom mu bàyyi ko fa ñëw lappe Touba lappe ci soñ mbokki naar yi sant Touré foofu ñu dogal ko foofu ci seen tool bi mooy foofu ñuy wax Touba Kër Ngànna suñ mbokki naar yi nga xam ni ñoo sant Touré te dëkk lappe ñoo ko dogal foofu Cheikh Sidi dal fa def fa dëkkam ñu jox ko ay tool mu fay liggéeyee di fa tarbiya di fa jàngale nekkoon koo xam ni itam ku nangu woon kilifteef la ku nangoon topp ay magam la علي دسني ما كريم أم دابرات القلب ونفسي تيبت لغنا فس تي

Eh, jiital ko mu nek porte parole nek lepp lépp Tiwaawan eh, mu ñew ci serigne bi waxtaan ak serigne bi ci lolu serigne bi xamal ko niko ko dama bëgg nu and dox ko wax ko kilifa yépp tamit nak non lay yeblé ci ñom ngir nu and dox ko wax ko ndax lu kenn man ñaar ñoko ko ko dàq ba gi nga xamni nak ci lañu yalla boole ñun eh, ñuy njabootu serigne Cheikh Ahmed Tidiane sek di ñaan yàlla mu dolli ko wéral te doolee guddal fanam yàlla boole leen jotaay ñoom ñaar man na seede ku mu digganteem ak sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke ni diggante bu rafet la bu ritax buñ dund bu barkeel bu benn la njaboot bi waaye sëñ Cheikh Ahmed Tidiane mi nu gën a jige te yàlla dogal mu dénk nu kàddoom nu man cee seede loo xamante ni nii du deñ te lépp lu rafet la diggante moo xalif bi tey Cheikh Ahmed Tidiane kenn ku ne da ngaa nekk xalifa ñu door a xaritoo wala ñu door a bokkoo mu ne déedéet ba ñuy xaritoo ba leen yàllay boolee ñu xaritoo di bokkoo di jëflante boobu amul kenn ci ñoom koo xam ne xam nga ne da nekk xalifa bon ku ne xam na ne loolu mooy li ma wax léegi ne kóllëre guñ doon ci seen i maam la doon ne ko ci seen i baay euh, ñu rafetal ko lool ñoom ñaar ñëpp ci demlante ak fekklante ñun ñi nga xam ne ñoo newoon ci diggante bi di dem ak a mu di ñu yónni ñuy ñëw di ko wax mu di ñu jox ay kàddu ñuy dellu foofa xam nañ mara dan bobu nim mu won ci dëgër ak ci rafet ak ci beugante ak ci ando ngir yalla ci Touba wax ko di ku ngeen gis di wax illallah bu leen ko noonoo jëfi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke firndeel na ko. fépp foo xam ne mas nañu faa dem itam digganteem ak moom waral na ëtt buñ ci dugg dafay mel ni jëmmi Cheikh Sidi Mokhtar bi moo taxaw teraanga ju ñuy teral nit teral nañ ñu ko ci ëtt diini yi loola it ñoom ba ñu koy def xamoon nañu ne eh, ëttu Serigne Touba ëttu diini la. ëtt yi ci des yëpp tamit ëttu diine la te ëttu diine yi ñoo bokk ndey ak baay ndax lislaam mooy ndeyu jullit ñi yëpp mooy baayu jullit ñi yëpp sëriñ Touba moo ko waajal ndaxte lii nga xam ne lii moom la fi liggéey liggéey ko Touba te ngeen déggoon Cheikh Mamadou Bachir énuméré ko ci jumaay maamam jooju def ko tamit ci dëkk bi li nga xam ne lii moom la def ci assainissement dëkk ba

léegi baqiya googu nga xam ni ubbi nañ ko ndax jële fees na fa la ñëpp di yóbboo ñi nga xam ni ñoo ñu jiitu nekk na liggéey boo xam ne bii benn liggéey féetewu ko kaw bi nga xamee ni njabootuk Seexul Xaddim gi doom yi nekkatuñu fi taxawaayu sët yi ràññeeku na lool waaye li ci dal xel dëgg-dëgg tey kéemaan moo di sëriñ Touba day xaadimu rasul mën na kanamam mën na ginnaawam jëf na ba fi bind na ba fi te saa su ne ñu gis ay firnde ci la sëriñ Mouhamadou Moustapha waxoon Cheikhul Khadim lim ma wax ma tekki sama bët lim ma wax te teguma ci sama bët laa gën a gëm te ku yër bayit bii ci midaadi wa aqlaa mi di nga xam ni sëriñ Touba léppam la fàgg woon dëppoo na lool ak al muxtaar ak al muntaxaa ci ni ñu toppantee ci xilaaf ak Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasuul